asalaamaaleykum mbokk yi ad diinu an nasiha diine mooy labiré Sëriñ Tuubaa nee na bu leen noonoo kenn lu dul ñaawteef yi bu leen xaritoo kenn lu dul yiw yi ndax yiw yi dañuy teral seeni boroom bu seeni guru di génn ba ñu tàbbe àjjana jëmu dik ña ko ragal safaan bi itam noonu mënees naa xiyaas lu nu waxul